donc ces impôts là si la seen ña fay jàng seen doom école publique ci 2 milliards yooyu lay génn. qui mhm. pense pas que c' est des 2 milliards malgré que l' état tamit fait du n' importe quoi parfois. mais ñun ñoo accepté teg état bu mel nii boo xam ni day def lu ko neex population bee leen fal le jour sanction bi mooy vote yegsee gu ñu vote comme état bi la ñu jox ñu nekk dans la légalité yow mi nga xam ne nag da nekk ci système bi nag jéemal tegu ci yoon surtout que yow bu dee da nga projet de société pour changer société bi waruñu la dégg ci ay problème emploi interne sa biir kër. war ñu la dégg aussi ci sa biir kër démocratie interne amu fa war nañ la dégg liberté ci biir ba pare war nañ la gis nga encadrer sa personnel ba nga xam ne du ñu wax lu ñaaw kuy saaga république bi kuy attaquer république yi les institutions aussi waruñu toog ci télé boobu ñu koy insulter lu mel ni Serigne Saliou Gueye il n'est plus journaliste c'est un rancunier qui est là-bas qui tire sur tout ce qui bouge Ahmed fa lu ko neex def lu ko neex wax mhm. Mansour Diop di fa attaquer tarixa yi Iran di fa sa attaquer xalif généraux yi du n'importe ku mu faral ñu ibbi la ligne bi ku faralul Bougane ñu sànni la fële mais c'est pas comme ça c'est pas comme ça le problème de ces journalistes yi mu renvoyé woon ñi mu dàqoon ñi nekk ci tribunal bi ñi nekk ci presse bi yooyu yëpp du ça n'honore pas l'homme l'homme dafa am un projet de société l'homme il nous prêche de, la bonne parole il nous dit que self made man la il nous dit que dafa jógee de from zéro Babacar Touré était là il n'a jamais eu ces problèmes léegi li ñu mën mooy kilifa yi ne ci presse parce que dañoo dañoo am nag ay orphelins maintenant la presse est orpheline parce que y avait des hommes comme euh, nañ dox ñaan jekk dem ci kilifa yi waxtaan ci côté boobu laay poussé. mais ils ne sont pas les premiers quoi wax nga léegi su ma juumul moom moo nekkoon sud. Ah, mais Babacar bi mu nekkee sud. te sud am nañ problème a mel ni mais sud problème bi ñu du seen problème Babacar Touré man moo ma yar. jàngal ma luy république jàngal ma luy institution jàngal ma ce que c'est manipulation Babacar ture bi muy am problème affaire Casamance ñu wax lu ëpp ñu ñëw jël si leen et c'est normal aussi mm-hmm. beneen bi si mooy jotee na fi ak Ablaye Wade fiscalité bi topp leen subvention yeeg yi la loolu état la c'est les ministres ak état yi la souvent ñoom ñooy def lu leen neex parfois xam nga da gis benn ñi eh, eh, remise fiscale tey ñu ngi ne waa TFM doo leen dégg mu ko ñu waxtaane fiscalité. xëy na est-ce que est-ce que amul lu tax. parce que parce que remise remise gracieuse la ñu war a encadrer remise gracieuse que dañu jàpp ne bu ñu nee bu ñu nee bu ñu bu ñu. Euh, mais sax waxee rek ñu ñu ñu woo leen ne leen kaay leen. non boobu ñuy def di ko am nu ñu koy baale jox ko pouvoir impôt et domaine nañ ko encadrer. ba pare en plus ñu xool ñi ma ñi mën a mat télé ndax mun nga am télé tamit dafa la Babacar Touré dafa mu mës a wax musul am projet de télévision. d'accord ak kilifa gi mu doon nga moo fi njëkk teg rajo école privée. privée su dul woon moom fu ñuy former noo journalistes dafa ne amul projet bi parce que amul moyen yi. Mhm. parce que pour nga am télévision dafa laaj ay moyens mais tey jii nii boo ubbee télévision amoo moyen da ngay mujj après jël sa ligne di ko jaay nit ñi. wala di seet après ñoo xam ne ni bu ñuy def campagne ñëw sa kër. jël yenn affaire yeeg on sait seen patron yi aussi xamuñu seen collaboration ak état bi. xamuñu lu ñuy parfois nga ñëw fi fii mos naa fi ñëw wax der gars yi ne ma doo ko fi waxee. mos naa fi ñëw émission. Hmm. ci koor gi wax der. ba tey duggul extrait bi génn parce que ne peut-être que DER était parmi les, les <laughs> quoi. alors <laughs> il faut que patron yi leur relation aussi avec les entreprises avec les états publics. alors ñu xoolaat ko ñoom it. alors ngeen bañ di dugg ci seen coow parce que ñoom xamoo leen fu ñu jëlee ak ñu ne seen ginnaaw ak yan. actionnaire ci nekk ak ñan ñu ñu amee publicité. Hmm. nan la demee aussi xamoo ko. suñu yoon na ah. léegi moo tax nag li waa D-Média nañu bàyyi wax ji nag teg micro hmm. te xool ñoom seen politique d' accord ñaan njekk pour ñu génn situation bi ñu nekk ñu dugg ci wàllum passeport diplomatique yi mhm. député